Bayern Munich ci na équipe bi la nga xam ne moo nekk Dortmund ci match boo xam ne ah, bu métti woon la saf sàpp neex nag match boobee nag daanaka Sadio Mané ñancoo dugg na ca waaye ñu nga ciy ñëw ci njeextalu li nga xam ne mooy xibaar yi waaye li koy commencé mooy euh, Müller mi nga xam ne ah, daanaka bu ñu juumul euh, dugal na ñaari but yoo xam ne yu dugal la yoo xam ne sax benn bi xaw naa nege-nege ndax góol ba ah, may na ko loo xam ne lu yomb la euh, Müller tamit terrain bi nga xam ne jaxase na ko ci match boo xam ne am na solo bu baax a baax ñoom Sadio Mané ñancoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk Musiala ñoom ñëpp ñëpp deuxième mi-temps lan tey ci match bi nga xam ne doon nañ ko jongante fële doon nañ ko jongante fële ca Allemagne ki nga xam ne nag mooy Leroy Sané moom it football na ca match boobee nga xam ne doon football ko jox ñancoo Sadio Mané waaye nag passe ba mu ko def nanu gisee passe ba ñun jàpp nañ ni passe boobee du passe bu nu bëggoon mu àgg ci Sadio Mané ndax passe boo xam ne retour la war a doon ci li nga xam ne mooy biir surface préparation yi loolee dafa war a xiir bu ko defee ñanc xëccoo ànd ak moom euh, ci biir camp yi waaye paas ba euh, diib na diib goo xam ne défense bu Dortmund bi euh, moo ko tourné loolee tamit njàngat la moo xam ne sunu xalaat la baye bu ngeen nangul na ko ci biir li nga xam ne mooy commentaire yi ki nga xam ne mooy monsieur la dugg ci deuxième mi bi moom a mën a passé la waaye nanu gisee na muy doxale mooy deuxième bi nga xam ne dugg na ko boppam lay kartal pour jiima def match boo xam ne bu subaak jàmm wala baneen yoon dañ koy mën a jël andi ko ci digg militaire bi ak bi muy football ndax loolu danañ ko comprendre ndax loolee individuellement la doon football ñancoo nag match bi mu doxal gis nañ ko bu baax a baax match boobee def na li nga xam ne mooy ay déplacement dugg di laaj bal bi waaye bal boobee nag daanaka ko yéex a jot ndax gars yi ñoo ko koy yéex a ñoom ñi nga xam ne mooy ay farandoom kon match bi daal xaw naa jaxandoo jaxasoo ci ab gis-gis waaye tamit na Bayern téewul gagné na tey ñëw na renouveler ak ay supporters am bi match bi jeexee ñoom ñëpp ñu dajaloo ci digg ñax mi daal di jàkk tàllali loxo supporters yi wax leen ni nan nu bu ko defee ñoom bu ñëwaatee affaire yi gën a jaar yoon waaye li leer ba leer tuxal moom première am fëgg na ci taabal ji ab victoire boo xam ne bu saf sàpp la